inna allazina daal gaa ya nga xam ne amanoo gëm nañ wa amiloo ñiy jëf saalihaati farataaki naafila yi danañ leen jox seen payoor ba mat sëkk ëllëg ci kanam yàlla te innaa naka ñun yàlla laa nu di o duñu sànk ajra man payoor ak képp koo xam ne ahsana rafetal na amalan ci jëf képp ku rafetal sa jëf ba dajeeg man danaa la faya faya fay ba nga ruus du ma la yokkal lu bon loo defut duma la wàññil lu baax loo def ulaay ko yooye gaay lahum aji nekk la ñaan leen jannaatu addinin aljaanaay sax te jëri boobu dana daw min taxtihim ci seen ron al anhaaru sew nda ñeent waaye ca xaaj suuf ba ca xaamim jële koy door a firee anhaarun min xayri Ah, maanaam sewnde boo xam ne ndox lay doon mu tàngut bi nekk soow bi nekk sàngara yoo xalaw na def na takkaayal leen fiyaa ci aljana min asaawira ci lenn ci ay njara am nañu jàpp ne min gi la ñii ne min gi minam tabiid la asaawira jamoo aswiratin min dahabin ci laala moom wurus la ba wa yalbasuna danañu sol siyaaban yére xuduran yu nëtëx min sundusin ci waluur boo xam ne boyof la wa istabraqin ak waluur bu tal bi moo tax ca beneen aaya gi sax da dégg mu ne bataayu naa min istabraqin mu takkiina mbir mu ñu woy sukkandiku fiyaa ci aljana alal araayiki ci ay lal araayik jamoo arikatin ci kaw ay lal lañuy nekk arab du ko wala dul lal yoo xam ne dafa am ay tànk yonent bi ne lal ya dana guddee ni diggante suuf ak asamaan saaba yi ne ko ah nuñ cey tëddee mu ne bouton ngay bës rek mu wàcc nga bësaat bouton rek mu dem loolu kon ascenseur yi mi ngi ñu koy jàngal waaye duñ benn yi ay xusma ñàpp la ascenseur yoo xam ne ma naa nekk cinquante étages nga bës rek mu wàcc bësaat rek mu yéeg ak yow yàlla ne neex ma baax na asawaabu payoor ga ta mooy aljana waxasu na rafet na tofakan ci palaasu yenduwaay te mooy nekk waay ba rek léegi loolu la wax kon gis nga aayaat yooyu yàlla ngi ci wax li mu xadul jullit ñi ëllëg ci aljana yàlla nañu ci yàlla boole li jara ñaan daal te jara sonnee mooy nekk jullit te ñaan yàlla dee ndax jullit marchandise am forot la keroog ba nga ne jullit laa rek yaag ma forodeur bu jënd marchandise am forod yéen a yem kooka bu jëndee marchandise am forod dox na diggante moom ak fam koy jaayee ay agent secret dox na fa ay douane ñoo xam ne buñ ko gisee la ma xamoon mu ñàkk ko yow tamit boo ne gëm naa yàlla seytaane ngi taxaw pour yàqal la ko sa bakkan a ngi taxaw ngir yàq ko addunaa ngi taxaw ngir yàq ko bànneexu bakkan taxaw ngir yàq ko ñeenti noon yii la yëpp kenn ku ci nekk yaa nga ngànnaayu ba dëgër dara taxut laa jug lu dul yàqal jullit bile marchandise am mu formulé moo tax kon feeg goo ci gëm yàlla rek bul naagu moo tax Aboubacar dafa daan wax ne feeg hubbi luñ ma aljaana ma dugg du tax ma naagu su ma duggoon sax ñu ne ma entré sama ndeyjoor ba jiitu tax ma naagu mën naa am. càmmooy bi fekk si ndeyjoor bi ma dëppaat yonent yàlla Moussa nee na su ma demoon ba dugg ba toog sax lu tax ma naagu sama maam Adama duggoon na ba toog mu mujj si maanaam génnaat na aaya ji tegu ci muy wadrib lahum masalan rajulayni yàlla ngi koy tudd di ci nettali ñaari góor ñu bokk benn baay nekkoon Makka bokk ci Bani Maxzuum kenn ka tudd Abu Salmata Abdallah mooy turam Abu Salmata di maanaam dàkkantalam moom nag Abu Salma mooy Abdullahi ibnu Abdul Asad ibnu Abdu Yalilin ku gëmoon yàlla la jullit la mbokkam ma nag mooy Aswad aswad ibnu abdal aswad moom yéeféer la moom nag ñu ne loolu ñoom ñaar ci la aaya ji wàcc ci ab julit ak ab yéeféer ñenn ñene daal léeb la rek wuy wane benn yéeféer bu ñu tuddee wax yenn tum nu xisnin ak mbooloo xam ma ak salmaan ak mbooloo xam salmaan ku gëm yàlla ak mbooloo xam ma wax yenn tu ku wedd yàlla ak mbooloo xam yàlla nag néralale nag ñaari góor ci banu Israil ñu bokk benn baay kenn ka jullit turam di xatruus su ko defee nga xam ne seen mbir yàlla nga ko nettali ci wasaafaati loolu dana ko wax dana ko gën a leeral ci wasaafaati waaye lu ci mën a am daal aaya ji ci ñaar la wàcc ab jullit ak ab xéeféer yu donnoon ci seen baay juróom ñetti junne ci dinaar alal ju bari la xéeféer ba moom jël dinaaram yëpp def ko marchandise am àdduna lii mu jëndee koy jaam lii mu jëndee koy tool euh, su ko defee nag jullit ba tamit ñeenti junneem ya mu def ko lépp marchandise am àllaaxira ne daal aljaana la bëgg yàlla fayee ko ko su ko defee nag xéeféer moom dafa xir jël nga ko moom euh, li yàlla dogal nag ba mu jeexalee moom jullit bi mu dem ci xéeféer bi bëgg mu dimbali ko en tant que ay mbokk lañ mu ne ko sa alal ja ñoo xemle woon foo ko dugal mu ne ko ma koo dugal ci wàllu yàlla bëgg boo liggéey mu fay ma mu ne ko yaa ñàkk fay de ko ndeke gëm nga loola mu ne ko waaw gëm naa ko de mu ne ko man nag loolu gëwuma ca dara kenn mënu laa tere torox du ma la dimbale dara yàlla dogal nag wëlbati mbir ya moom mii lam defoon ci tool yaag jaam yaag marchandise ma lépp xëy yàqu mu ñàkk moom moom moom moom moom ba kii nag lam xas doxe ko ci wàllu yàlla ñàkkut ko ndax loo def ci yàlla rek ñàkkoo ko waaye loo def ci lu duhut yàlla ñàkk nga ko loolu ñu ne mooy sababu nusool bi moom la yàlla nag bi ñuy wax si nii ci aayaat yi nga xam ne moo dëxëñ loolu nga xam ne moom laa la wax boo demee ca tafsir bu ñu tuddee xaasin dana la ko gën a leeral ci sababu nusul ba mbaa nga dem ci maraax yi dana la ko leeral moom tamit moom laa lay wax si ni nag moo tax sama borom tofal ca ne wadrib na nga sadd yow yonantu bi lahum ñaali xéeféeri màkka yi ak jullit ña masalan léeb léeb wa lan la mu ne rajulayni ñaari góor moo tax mu badal ca jaal naa def nañ li ahadihima ñeel kenn ca ñoom ñaar te mooy xéeféer ba jannatayni ñaari tool min anaabin ci daala moom raisin la tool yi raisin wa xafaf naawuma peeg nañ peegee nañ ñaari toolam yooyu bi nax lin ci tàndarma raisin bi tàndarma ko wër wa jaal naa def nañ bay baynahuma seen diggante saraan mbay mu ñuy dundee mu ngi ci biir tool ba kiiltal jannatayni ku mu ci ñaari tool yile ji am muy raisin ak i tàndarma ak i yeneen i xeeti meññant aatat joxe na ukuluha meññatam ma walam tas li wàññeekuut mi nu ci moom say am dara mooy meññ la ba ba maanaam meññ na lool wa fajjar naa balal nañ xilaaluhuma ki seen biir naharan dex dex yaa ngay sotteeku ci biir tool ya wa kaana nekk na la woo ñeel ko moom xéeféer boobu ànd ak ñaari toolam yi de xam na ba tey samarun meññant su ko defee meññent moo xam ne ci ci xeeti garab yi ci la ko jëlee fa qaala wax moom moom xéeféer ba li saahibi ñel xan ndorom bay jullit woo fekk mbir moomu moom yoo xaawiroo ma ngay puukarewu ca moom ne ko ana man mi ak aksaru maa gën a bëri la min ko ci yow maalan ci xalal wa a'azzu maa gën a tedd min ko ci yow ba tey mu xasaf ko nafaran ci giir wa daxala tàbbi na nag jannatahu toolam ba boo ko defee nag fekk huwa moom zaalimun aji tooñ la li nafsi ñaal boppam ci ak kiifir toom ñooy fekk tool ba xal ko xaalam ma ngay xool tool ba nag ak nam rafetee xaala mu ne maa azunnu njortuhuma an tabida bi xal ko mooy di ñàkk haadihi bi tool abadan faw du lu fiy jugati a wa maa azunnu njortuhuma sax as-saa'ata bis penci qaa'imatan di aji taxaw moom daal bis penci sax jàpp naa ne xamut wala in ruddittu su fekkee delloof na ma tamit ilaa rabbi jëm sama borom su fekkoon ne àllaaxira am na comme ni nga ko waxee bañ dem fa ëllëg la aji dan na walaay danaa am xayran lu gën min ha ca tool booba mun xalaban ci wëlbatikuwaay ah danaa am lu gën a lu gën a lu gën a tedd lu gën a bëri li ma xamoon fii moo tax man la aji danaa am xayran lu gën min ha ca tool ba mun xalaban ci delluwaay xaala wax na la woo ñeel ko saahibu waxan ndoram bi nga xam ne ab julit la waxuwa fekk mbir moomu moom yoo xaawiroo ma ngay tontanteeg moom ne ko ak farta da ngaa weddi bene si buur ba nga xam ne xala moo la bind tamit ci sa maam min turaabin ci suuf te mooy aadama suma min nutfatin topp mu jëlee la ci toqantal ma niyu yow mii ci nga sosu sa maam sosu ci suuf suma sawaaka topp mu xemale la nga gannaaw si mu jël na la sax rajulun ngay góor laakin naa li fi nekk man daal dégg nga waajaay wax ne huwa moom huwa liy mbir tey mbir allahu yàlla rabbi mooy sama borom de yow weddi nga ko waaye man duma weddi yàlla mukk wala ushrik du ma bokkaale bi rabbi ahadan kenn li nga amoon nag da nga ko ñàkk li tax nga ñàkk ko da ngaa gëmut yàlla walaw laa is daxaltu taa ba nga tàbbee jannataka sa tool bi xulta nga wax ba nga koo xéemee ca rafetaay ba au que nga ne maa azunnu an tabida haadihi mais nga ne rek macha allahu lépp lu soob yàlla mooy nekk wala laa quwwata lii benn kartan dañu ñaal ilaa billaahi lu dul ci yàlla képp ku gis sa halal mu yéem la ci rafetaay nga wax lii doo ko ñàkk mukk moo gisee sa kër mu rafet waxal macha allah la quwata illah billah boo gisatee sa oto waxal macha allah la quwata illa billah nga gis say gàtt waxal macha allah la quwata illah billah nga gis say doom waxal macha allah la quwata illa billah kon de doo xam lu la naqari mukk ci sa alal ja fay gën di yokk gën di sangewu gën di ñoŋewu waaye nag nit ñi dañuy jël macha allah la quwata remplacer ko gémmañu bu ko defee xëw cëy nangam ak nangam. ku la ne xëw rek am na lu mu daggee ci yow ba xëw ko loolu lépp musiba la cat la yu bon a bon a bon waaye suñ jëloon baat yu bon yooyu ñuy wax yëpp remplacé ko macha allahu la quwata illa billah li ñu xam fay gën a yokk gën a gën gën a ne gën a tedd duñ ci am dara lu ñu naqari waaye léegi nag gémma ñu waxante rek ak wax joo xam ne ju ñaaw a ñaaw la moo tax Omar ibnul Xattaab moom bañoon na ko ba këram euh, buntu kii koon Sayyiduna Sayyiduna Malik imaamu Malik buntu këram da caa bindoon macha allahu laa quwata illa billaa nga xam ne saa yuy dugg rek mu fàttali ko ko mu mën a jaar ca loola wax ko ndax kuy wax loola sa alal doo ci gis mukk lu la naqari nga wax sa njaboot doo ci gis mukk lu la naqari sa da ngay gën di tedd rek sa alal gën di yokk rek gën di ñoŋe kon nañ bàyyi ëw nañ bàyyi cëy nañ bàyyi yenn gémmañuy baat yu bon yu ñaaw yooya te remplacer ko baat yu baax yii muy macha allahu la quwata illa billah su ko defee kon ñàkk na léegi nag jullit ba di ko wax ne ko intarin intarinin xaaji sulóoma ana man aqalu maa gën néew min ko ci yow maalan ci xalal wa wala dan ak doom waaye nag faasa rabbi amaan sama borom an yutee nii mu jox ma xayran lu gën min janatika sa tool bi waaw waaw wa yursila mu hebal aleya ci sa tool booba xusbaanan safara xusbaanan kenuy dënn mi ne samaa yu bàyyi ko ci asamaan fa tusbiha mu mujj moom tool ba sama suus dana mujj saidan di detteer salakan boo xam ne bu rattaxar tax lay doon loo ca jëhati ci ju sax maanaam saidan di kekk salakan boo xam ne bu rattax la dootul ti saxal benn gàncax aw yusbiha wala mu mujj maa waxaa ndoxam ma xawran di aji ngiis ndox nag tool bu amul ndox doo fa mën a bay dara te su boobaa falan tasatiha attanti loolu la woo ko talaban sàkku menn pexe moo ko mën a dabaatalee bu ko defee nag woo xuyta peegeef bi samarihi ci xanami xalalam jëpp jëm xamoon ànd ak tool ba lépp mu mu mu ñu peege ko ci e, lu koy wër di ko yàq moom fa asbaha mujj nag moom borom tool ba yu xalli bu di wëlbati kafayhi ñaari tënkam ya ngir ak réccoo perte xalaa maa anfaqa ca lam dundale fiihaa ca tool ba fekk wahiya moom tool ba xaawiyatun aji mabbu la alaa urushihaa ci ay kenoom lépp mabbu na gan gàncax gam fa defoon yépp yàqu na ndox ma ñiis du ko defee lam xamoon ci xalal lépp yàqu te li ko ko yóbboo lépp mooy bàkku ak tiitaroo xalalam foog ne moo ko jox boppam wa yaqulu ma ngay wax ne yaa yëgal ne layta nii xellante woon na man lam usrik mu bokkaale bi rabbi sama borom ahadan walam takkun yàllaay wax na nekkut lawoo ko ñaal fi atun mbooloo yan suróonoo moom danañu dimbale ko min doon laay ku dul fa toolam baxal ko ak xalal xalalam ja wa maa kaana nekkut sax muntasiran di aji tere alkande gi dal ci kawam munu koo tere boppam hunaalika foofale bu ñu xeggee yowmal qiyaam mi muy bàkku naan falaay gën a baaxlee foofa de alwalaayatu kilifteef ga lépp lillaahi aji neex la aji sax la ñaal yàlla alxaqu yàlla may aji sax te yàlla moomu huwa moom xayrun moo gën sawaaban ci yool képp ku ko topp ci kooka bu topput keneen yàlla daal boo ko toppee bu la fayee dana niroog dana xuuteeg ku toppul ku dul yàlla bu ko kooka fayee ndem xam na fay wa xayrun moo gën ko ban ci mujj gu rafet ku topp yàlla sa mujj ni muy mel ci rafetaay dana wuuteeg ku topp lu dul yàlla lii la yàlla wax ci borom ñaari tool yi borom ñaari marchandise yi bokk bàyyi bokk luñ donn bokk ko donnoo xem luñ donn kii jël lim donn lépp lebal ko yàlla kii jël lim donn lépp lebal ko àdduna ñàkk na àdduna ñàkk na àllaaxira kii nag yàlla wëlbati na àdduna mu jag mu jàll bi ko tamit jagal ëllëg àllaaxira am kon li ñuy déggee ci aaya ji loo bañ a ñàkkati lebal ko yàlla ndax yàlla loo ko lebal dana la ko sakkanal dana la ko dencal man dal lazi yuqridu laa qardan hasanan fa yudaa'ifu adaafan kasiira te loolu mooy li am solo ko loo bañ a ñàkkati bañ mu jeex na nga fexe jox ko ki dul jeexal ndax maa indakum yanfadu wa maa indallaahi baaq ko ku bañ a jeexal ngay fexe ba boole ku dul jeexal li nga tuutile tuutile daal boo ko boolee ku dul jeexal mi yàlla rek du too jeexal ci dara waaye ku jël sa xalal jëmbat ko ci àdduna perte nga nañ jël suñ njaboot gi jël suñu xalal mu tuuti mu bari lépp yàlla ñu ko dénk bëgg ñu topp ko ca ñu delloo ko yàlla boo léegi yàlla sakkanal ñu ko dencal ñu ko bu ñu fayee rek suñ bëgg suñ nit ñi bëgg waaye jël xalal def ko ci ay immeuble yu dul jeex mënoo koo dëkkee jël ay xalal def ko ci oto yu dul jeex mënoo koo war jël ay alal def ko ci ay compte banque rënk ko ci mënoo koo lekk nga dem ba dee duñ sa mën a jot nga perte pertal sa njaboot perte tamit ëllëg àllaaxira moo tax na yonent bi daana wax ne nit ñi daal fa mel ni xalal ji ñu leen war a donnoo moom lañ gën a xiir ci xalal ji ñu war a jiital ci seen bàmmeel kon nag compte banque yeeg immeuble yi dul jeexateeg yépp loo xam gën a xiir ci sa kanam te yow sa àllaa xiraaga dencaloo ko dara pertement rek la lay jural te da yàgg naa wax ne jal ko jël ko yombut lu gën a bëri mooy jal ko ñi jal la ñëw jël li nga jaloon kon loolu lañ ci bàyyi xel aaya ji nag ba mu jeexee yàlla ngi ciy tofal àdduna ak nim ñàkkee solo mu koy niraleeg ab taw bu saxal gàncax mu naat lool ba ñëpp yéemu ñu teg ca ay fan mu wow mu mujj ngelaw la ñëw jéeri ko noonu la àdduna mel lum la jox rek assuré wut moom daal lum la may muy lu bees bu ko fi ñaari woy bees yi yàggee fekk rek mu mujj màgget inal jadidayni ismastawla yaa ala àdduna adnayaahu lil bilaa la borom durée di waxoon te loolu wax ju am solo la ñaari woy bees yi buñ ci fekkee sa kër gu bees gii bu yàggee rek kër ga ràpp buñ fi fekkee sa woto bu bu bees bii bu yàggee mu ràpp buñ fi fekkee sa yére yii bu yàggee maanaam mu ràpp buñ fi fekkee sa jëmm ji sax bu yàggee tamit sa jëmm ja ràpp dootul mën a ci dara kon nag àdduna amut solo ko ko téye jàppoo ci dara moo tax mu ne masalal xayaati meloo dund ba duniyaa bay aji jege tuddee nañ ko duniyaa ngir lim lim jege ci jeex yàggul li muy yàggadi yaa ko gën a yàggadi li ngay yàggadi sa man ngee gën a yàggadi moom daal ka maayin fa mel ni ki ndox ansal naahu boobu wàccee nañ ko mu ne samaay ci niir yi faxtalata jaxasoo bi ak ndox mooma mu rànkalikoo nag nabaatul ardi gàncaxu suuf bañ yee nag diggante suuf sa ak gàncax ga ak ndox ma mu jural la ak gàncax mu naat waaye nag bam naatee fa asbaha mujj na moom gàncax ga man di aji waw teqalikoo ci ay xaajam tadruhu mbir moomu dana jiiri ko ariyaawu ngelaw yi mu mujj nag tasaaroo dootoo ca mën a ti tus mënutoo koo téyeti noonu la àdduna mel loo ta loo ca dajale dana tasaaroo doo ko mën a téyeti boo ca bañee bëggee noppalu daal loo ca yor jox ko yàlla wa kaana nekk na laahu yàlla muqtadiran di aji xattan xalaa kul seen ci lépp la fu moo xattan ci dencal la loo ko dénk almaalu alal ji wal banuuna ak doom yu góor yi ñoom ñëpp daay noonu ci namu tamit ak doom yu jigéen tax liib la ziinatul xayaati taaru dund la duniyaa bay ak i jege maanaam àdduna daal ñaari taar la am di ko di ko di ko daagoo mooy alal ak doom ñaari yi ko yàlla jox am nga taarab àdduna soo ko delloo yàlla mu jëral la taarab àllaaxira te njëkkee na alal nag ndax alal mooy sabab doom xalal ngay mën a am tabax kër ci ngay mën a am bëgg soxna mën ñu laaj la can nga joxe ñi may la ko nga koy dundal di wéet moom ba yàlla indil la ci ay doom waaye nag doom a gën xalal ndax kat doom mën naa meññi xalal waaye xalal mënta meññi doom moo taxoon tey boo fi nekkoon ñàkk doom fu ne nga dem ci sëriñ bu la laajoon milliard sax nga joxe ko ta doom ndax mooy liy metti li sa dund gannaaw sa dund moo lay dimbale gannaaw bi nga xamee da ngaa kon nag almaalu wal banuuna ziinatul xayaati dunia boo ca bëggee nag mu jural taraab xalaaqiraa rek delloo ko yàlla soo ko delloowu rek danga mujj perte su ko defee nag wal baaqiyaatu way des ya asaalihaatu te nekk yu xiiw baaqiyaatu saalihaat nag mooy subhanallah walhamdulillah wa laa ilaaha illallah wallahu wala hawla wala quwata illa billahi ñii ne baaqiyaatu saalihaat mooy julli juróom yi ñu ne baaqiyaatu saalihaat gën lool yaatu loolu lépp wépp yiw woo def rek bëgg yàlla dencal la ko te ba nga koy def nga teg ko ci sunna teg ko ci alquran sellal ko rek baaqiyaatu saalihaat la ña waxoon ne nag mooy subhanallah walhamdulillah ak baat yooya ñu ne ah kay subhanallah la baat la bopp malaaka yee aras ñoo ko njëkk a wax ñoo njëkk a wax su subhanallah boo suñ maam aadamaa ko njëkk a wax wala ilaha illallah yonent yàlla noox moo ko njëkk a wax wallahu akbar yonent yàlla noox a ko njëkk a wax wala hawla wala quwata illa billahi sayiduna muhammad moo ko njëkk a wax yonent bi nee na nag baaqiyaatu saalihaat yële dañ leen di tuddee njën bëtal aljana képp koo xam ne wax nga ci baat yi le benn njëmbat nga garab ci aljana goo xamee ne nii euh, fiha ma tastahil anfusu wa talatul ayunu kon loo xam am solo la yonentu nee na sax gën ci baat yu ñuy bàkkee yàlla mooy bàqiyaatu saalihaat euh, gën ci ñaan mooy sant yàlla mu ne nag baaqiyaatu saalihaat xayrun moo gën inda rabbika fa sa borom sawaaban ci payoor wa xayrun moo gën timit amalan ci lépp luy nit ki di mbébét di ko yaakaar ëllëg ca yàlla wa fàttalikul yawma tusayru bis boobu dana déplacé aljibaalu doj yi dana de dana demee aljibaalu doj yi def leen ñoom ñëpp raase leen ñu soppeeku pënd waaw waaye salo xal jibaali xol yeen siwaara fi nasan fa yadruha qaan saf safan aaya jooju lay junj rek lu ko defee kon bañ ko laaje loolu la wax watara da nga gis al arda suusee baari satan muy aji tàlli feeñ doo gis dongo doo gis montagne doo gis garab lépp raase tàlli boobaa nag wa hasharnaahum ñi pang leen yéen jullit ñi ak xéeféer yi falan nu xaadir du ñu bàyyi minkum minhum ca ñoom doomu aadama ya ahadan kenn wa uridoo gaara lef leen ala rabbika sa borom safan mbir mu ñuy def ay sappe nit ñi ñëw defi sàppe jinne yi wër leen malaaka yi ñëw wër leen yàlla ne laqad naa wallahi dikkal ngeen ñu kama xalaqnaakum comme nañ leen bindee woon nañ leen bindee woon awala mar ci njëlbeen yoon nañ leen bindee woon ci njëlbeen yoon mooy kenn kenn ñii ñëw par pari siix am na waaye par kenn ay génn ndoor noonu ngeen génnee woon bu yaay jëy siix tamit ñaari doom duñ génn ndoor kon kenn kenn lañ soo lëggee bu ngeen may wuy si par kenn wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati fardan ba ngeen mënoon xuur si da ngeen rafle woon su ngeen di dem di ma wuy si ëllëg yawmal qiyaam da ngeen di rafle da ngeen timit nekkoon ñu fandaañu kenn ju doogut ak dàll su ngeen dekkee ëllëg di ma wuy si kenn du sol dàll kenn ku ci nekk da ngaa da ngaa juddoo woon ànd ak góor dugalaguñ la ci woon kanaa yonantu yee ca yàlla dimbali rek muy fukki yonantu ñaar dañu xamee ko ci barkeb Sayyiduna Muhammad nit ñi tamit bu ñuy dekkee ëllëg kenn du ñëw ak ku ne dugg néegab góor na da nga ànd ak ñàkk a dugg néegab góor médecin ba la ca dugaloon sax fam sànni mbir ya xamatu ko waaye yàlla moom xam na ko ci dana ko dana ko ca kolehaat ba mel na meloon nga judd ci nga judd ci ak mat nga juddoon booy dekki tamit ci ak mat ngay dekki haat yàlla ne balli fi nekk sax amtum ne ngeen fu ko araa waxee rek li nga wax gëmut ko ne an naka lay mbir tay mbir lan yajala du def mukk lakum ñi leen moom yàlla mawidan dëxalab dekki yéen a ko wax tey ngeen dee dee da dekki yéen ñëpp wa wudi'a tëraleef alkitaabu téere jëf ya buy yow jullit mu féetale ndeyjoor booy xéeféer mu féetale càmmooy war a war a zahri yi fatara da nga gis almujrimiina kàccoor yi muy xéeféer ya musfiqiina ñuy way jàq mimma fii ci li nga xam ne làmboo na ko ca téere ba jëdëb jëf ba wa yaquluuna ña ngay wax di saalik yëgal waylatanaa woo nañ suñu toskare maa li haasal kitaab ana lan moo ñeexal bi la téere waay laa yugaadiru moom de bàyyi hut saxiratan bàkkaar yu ndaw yi wala kabiratan yu mag yi lépp a ngi ci moom daal dara bàyyi wut ko ilaa saa lu dul ba takk na ko ilaa saa lu dul ba saxal na ko ña ngay yéemu wa wajadoo fekk nañ maa amiloo lañ jëf xaadiran muy luñ saxal ki seen téere ya wala yaxlimu du tooñ rabbu ko borom sa ahadan kenn balay yokkal lu baax lu bon loo defut mbaa mu lay wàññi lu baax loo def kon boo lëgee bu dëkki amee ñëpp ci menn péncam yàlla ñi ne suuf si lay doon waaye dañ koy solal ma neen mbubb rek mu weex taal ñi raase montagne yi daane garab yi ñenn ñene beneen suuf lay doon yow ma tubbadalul ardu xayral ardi boo demee foofa jaaroon nañ ca waxoon naa la ko bàyyi na wax ja ma ngay dugg nag ci diggante aadama ak malaaka yi ba ko yàlla bindee ne nañ ko sujjootal ak iblis ak nim bañee iblis nag lan la malaaka la wala jinne la aaya ji moo koy leeral moo tax sama borom ne wa fàttalikul id qul naa ba ñu waxee lil malaakati ñeel malaaka yi ne usjudoo sujjootal leen li aadama ñeel aadama fa sajadoo sujjoot nañ ñoom ñëpp illa iblis lulul iblis istisnaa mun xatir la kaana bokk na minal jinni ci jinne ya mooy bàyyi jinne yi de moom iblis su ko defee fa fasaqa génn na topp an am rabbihi wala si ndigalal boromam yàlla nag di wax ne a afata taxisuunahu ndax da ngeen koy jàpp moom iblis wa zuriyatahu ànd ak njabootam ga wa zuriyatahu ak njabootam nga awliya ñi ay xarit min dooni walis ma man yàlla ngeen leen topp woohum fekk mbir moomu ñoom mooy iblis ak njabootam nga adduwun ay noon lañ làkkum ñaan leen bi sa bon a li zalimina ñeel tooñkat ya badalan ci wattee iblis ak njabootam nga ci yàlla feesut palaasam ba de taxal li wér te xóor maa ashhadtuhum teewalu teewaluhuma leen woon moom Ibliis a njabootam ga xalqa samaawaat ci bindu juróom-ñaari asamaan bu may bindu juróom-ñaari asamaan wal arde juróom-ñaari suuf yi Ibliis ak njabootam nga teewuñ fa woon wala xalqa anfusihim du caa kenn bind seen bopp dama ma leen bind tamit Ibliis teewut fa woon wa maa kuntu nekkum woon man yàlla muttaxidal mudillina di jàpp way sànke ñi te mooy saytaane yi addu doon addu dan ay ndimbal ba may bind asamaan ak suuf di leen bind teewaluma woon iblis ak njabootam nga ñi may dimbale fekkuñ ko woon sax wa wa dégg nga wa fàttalikul yow ma yaqulu bis boobu dana wax moom yàlla ne naa doo leen surakaay way bokkaale sama ñi ngeen wax alis ñi nga xam ne sa antum nee ngeen dañ leen ràmm ëllëg xoo leen leen fa daawhum xoo nañ leen fa lam yastajibu huyuhuñ lahum ñaal leen ndax mënuñoo huyu wa jaal naa def nañ baynahum seen diggante mooy diggante xiram yooya ak lañ doon jaamu maw bi xan kuuru halkande woo xam ne ci laa leen di xalak leen waraa gis na almujrimuuna mooy xéeféer yi annaara safara fa zannoo hóolu nañ ne annahum naka ñoom mawaaqiuha way tàbbi lañ ca safara waaw kenn mun leen cee musal wala ñu jidoo amuñ xanaa wali safara wa masrifan su wëlbatiku waay masrifan ci njuuy waay lii nag xam nañ dañuy dugg ñoom ñëpp ña ngay jooy di yuuxu yàlla ne yéen a ko teg seen bopp de ndax man yàlla mii wala xadd saraf naa wallaahi sa dëgg-dëgg biral naa fi haasal quran ci hal quran ci le li naa si ñeel nit ñi min kulli masalan ci bépp lépp ngir bëgg rek ngeen waaru waaye ànd ak loolu wakkaana nekk naal insaanu xéeféer a sara sëyin di gën cey bëri lëf jadalan ci ci dàgg santé xéeféer dàq xuloo ma ngay xuloo bay xuloo man mi ko bind wa ma mën a atteré hu naasa nit an yuminu seen a gëm is jaahum ba leen dikkalee alhudaa njub muy alquran wa yastaxfiru jéggaluhuñ rabbuhum seen borom illaa an taati lu ba dikkal leen sunnatul awwalina yoonu ñu njëkk ñi teg mooy xalkande ga daloon ci njëkk ñi dal seen kaw rek aw yaati wala dikkal leen xasaabum mbugal ma xabilan ci jàkkaarle te loolu mooy badar ba mu jotee ñu jàkkaarloo mbugal ma maray ci juróom-ñaar fukk jàpp ci jaam juróom-ñaar fukk ña des daw wa maa nursilu xebaluñ mursilina way yónni ña i ñu yónni ña illaa mu ku ñu ku leen gëm ñuy ci aljana ñii mooy jullit ña wa na ñuy waare ku leen weddi ci safara mooy jaadoo danga nga xam ne ak kafaroo weddi nañ baat li ci neen ñoom ña ngay dagg sant rek lu tax ñuy dagg sant nag li yudhidu ngir nañu neenal alxaqa dëgg jii de di alquran wa taxasoo ñu jàpp ayaat yi samay kaawteef yi di alquran wa maa ak la nga xam ne unziroo waareef na leen ci moom ci safara xusuwan ñu jàpp ko muy ak yëjji wa man xamul kenn azlamu ko gën a tooñ. li man ci képp koo xam ne zukkiratu def na bi ayaati rabbi ci aaya boromam fa arada mu dumu yoo xam ne walis ko wa nasiya mu fàtte maa la nga xam ne xaddama jiital na ko yaddaahu ñaari loxoom ya ci ay jëf ci bon innaa naka ñun yàlla jaxal naa def nañ alaa quluubihim seen xol ak akinatan mu ay muuraay an yafqahu walis ñu dégg alquran wa fi aathaanihim aji nekk la seen nopp ya waqaran ak diis wa in tad'uhum boo leen wooyee ilal hudaa jëme leen ci njub fa lan yahtaduu duñ gindeeku ndax ñaar yooyoo tax idan boobale duñ mën a gindee ko abadan faw ku say nopp tëx say bët gumba sa xol bi muuru fooy gindee ko wa rabbuka borom sa nag alxafooru mooy jéggalaa kon ba zu rahmati mooy borom yërmande ja yow yu aqifum bu leen doon jàpp ci àdduna bi maa kasaboo ca lañ fàggu ci lu bon kon la ajjala dana gaawe lahum ña azaaba mbugal ma de waaye nag yéexee na leen rek ngir yonantu bi bal li fi nekk lahum aji nekk la ñaal leen mawidun dëhël bu ñu war a dajee muy bis penc buñ ca xeggee lan ni ji doo fekkantit maanaam min doole wala si yàlla maw ilan wéeruwaay ñu ca xeggee xamuñ fenn fu ñu xamee ak wéeruwaay wa tilkal qura yooyu la dëkk nga xam ne tamanke nam ñooñ dëkk ya muy dëkk ya niti xaat ña ak niti samuda ya ma yoon yoon ci ñoom saalihoo ko xuut ëllëg naahum xalak nañ leen te yéen a leen romb ci seen place di tukki lammaa ko lam bañ tooñee te yéen a ngi sax ci tooñ wallahi su ma leen xalagul yonentoo tax de wa jaal naa def nañ li muhlikihim ñexel seen ak alkane da nga koy taawil masdar mawidan muy dëxal de boo xam ne buñ ci xeggee faw ma xalak leen kon gis nga kenn du yàlla mooy ki ñuy exeme ëllëg yërëm ñu bëgg ñu at mi mu ñuy liiral not yi nga xam ne suñ ko notee ci jàng ko ci jëfee ko dañ at mi ëllëg ku lay ku lay examen nag bëgg nga at mi mu lay wax lam lay laaj sa dëgg dëgg dëgg fa la ma yërmande mën a xem lii la lépp tey lum ñuy laaj ëllëg la bëgg ñu teewal ko fii bu ëllëgee mu mu ñoo sowe waaye nag ah du ko mën a teewal koo xam ne man yàlla maa kaste xol ba ba mënta nangu dëgg ma kaste bët yi ba mënta gis dëgg ma kaste nopp ya ba mënta dégg dëgg te loola mooy xéeféer ña su ko defee tamit nag muy xéeféer yi rawat na nag xéeféer yi màkka yi weddi yonantu bi nit ñoo xam ne lépp lu xéeféer yu njëkk yi daan ma mooy ba ma xalag leen rek des nañ lu ko raw waaye ma rusee leen yonantu bi rek di leen xaaree bis pénc waaye su ma leen xaaree woon fii ci àdduna comme na ma ko defee woon ñële du fi bàyyi kenn ñoom ñëpp ma xalag leen law yuwaaqifum bi ma kasabu la ajjala lahumul azab waaye nag bal lahum mawidun lan yajidu min dunihi mawilan te nag waroon nañoo xalam ci li passé da ngay tukki di def rixlata chitaa'i wa sayfi di romb dëkk nit yi samuuda yaak nit yi aad ña seen jeexitalu alkandega te li leen ko yóbbu woon xam nañ ko kon nag jàjjeeku leen topp yàlla bala ngeen a alku bàyyi na wax jooja mi ngi nettali na xisa bu yéemu ki diggante yonentu yàlla Moussa ak Xadir yonentu yàlla Moussa fa mos toog di waaraate ci banu Israil ñooña nag laaj ko ne ko waaw ci ji jamono ana kan mooy xam-xam ci kaw suuf mu jël baaraamam ya joxoñ boppam te yàlla dafa bëgg ñi koy joxoñ bëggul kuy joxoñ boppam ndeke joxoñ googu mu joxoñ boppam yàlla nag nar na ko cee nattu ne ko ci sama jaam yi am naa jaam boo xam ne moo la raw fuuf muy xadir boroom xam-xam yi ne nañ ko man turam sax doo dem safara xadir mooma yàlla moo xam lam doon waaye daal jaam yàlla la bu hiiw bu baax Seexu Tijaan nee na waliyu la waaye du wut mu ne ko lu taax mu ne bu doon yonantu Moussa dana ko xam ndax bokk nañ jamono te ay yonantu buñ bokkee jamono faw ñi xamante mu ne ñaareel bi duhut yonantu bu doon yonantu yonantu yàlla Moussa du ko wax naan ko laqad jita shayan imran ak nukuran ak yu mel noona ndax dana xam ne ab yonantu maasum la te ko yàlla musal mënoo ko moy yooyu la ci Seexu Tijaan wax waliyu la boo xam ne moom fi dégg ak nit ñi xem fa la déggam commencé jëm kaw yàlla nañu ko yàlla fayal te reyu ci ab tariqam su ko defee xadir moomu moom ba léegi mi ngi dund ba yenentu bi génnee àdduna sax ñëwoon na di jaale aboubacar ak sahaba ya yonentu bi dañoo dégg burwéem ba rek aboubacar na kooku mooy xadir kon moom ma ngay feeñu gaay yàlla ya ah ña ko yàlla may yàlla nañu yàlla may mu ñuy bokk ca ñamuy feeñu yàlla nañ ci yàlla boole yàlla koy maye de te moo ne a astajib lakum kon yàlla ñu ko yàlla defal xadir moomu nag lam doon yàlla rek a ko xam wax naa la ko Moussa nag yàlla ne ko sama jaam bii di xadir boo dajeeg moom danga nga xam ne moo raw mu ne ko nu may def ba gis ko. mu ne ko moom de mang ca daje waayu ñaari géej ya di géeju ruum ak géeju faris perse ak rome seen ñaari géej ya fañ daje foofa la nekk su ko defee tamit Moussa nag ànd ak benn taalibeem bu ñu tuddee Yuusu anum nuun mooy ki ko donnoon gannaaw bi mu fi bàyyeekoo doon xeex ak jabaa bi rataya daan ko liggéeyal duhut jaam ab taalibeem la sëriñ yàgg naa tukki ànd ak taalibeem bañ déparé nag Moussa ne du ma dañ di dem ba tama xegge ca daje waaye ñaari géej ya doonte damay def sama tukki mi ay xat yu limoo limu départ na ba ñu demee ba ca daje waayu ñaari géej ya rek jën wañ yore woon nga xam ne ci lañ daan dund yàlla dogal jën wa dafa wowoon waaye yàlla ngi koy bëgg a wan jën wa jékki-jékki rek rëcci Yuusuf may taalibe ma sàttaxlu ci biir ndox mi haa di dund gannaaw bam mu deexee yàlla di ko ca jàngal ne ko mën naa fekk ku dee ci xam-xam ku dee ci ñàkk xam-xam ma dundal ko ci xam-xam ba fa géej ga nag ba jën wa daanoo foofa départ Moussa fàtte na koo laaj Xadir Xadir fàtte na ko koo fàttali ñu depaaraat di dox genn wàll këy lañ dox rek sonn lool boole ko kiif lool Moussa ne ko atina gadaana andil ñu suñu xañ bi waay laqad laqina min safarina haza min safarina haza nasaban suñ tukki bi sonn nañ ci xoolal yàlla mooy kéemaan lañ déparé di tukki yëpp def nañu ñeen fukki fan ba lañ fay hegg ñeen fukki fan yoo xam ne bëccëg yeeg guddi yëpp dañ doon xoor musuñoo xiif te daan xoor guddi yi di xoor bëccëg yi musuñoo xiif kon daanaka juróom-ñetti fukki fan lañ xoor waaye ba bañ xeggee ca place ba leen yàlla waxoon ne fala mbir ma ne dañ ko jéggee rek nag lañ commencé sonn commencé xiif muy genn wàll bëccëg kon li muy tekki kuy dox ci yàlla. lu distance ba yàgg yàgg yàgg yàgg doo ko yëg doo yëg coono ba lu distance ba yàgg yàgg doo yëg xiif ba ndax xiif ak mar ñaari bànneex lañ yoo xam ne boo leen fàttee rek ñu mujj fàttewu waaw waaw boo leen bëgg a narloo rek fàtte leen nga xiifoon rek nga fàtte ko nga maroon nga fàtte ko bu yàggee rek dootoo ko maanaam fay mel ni mosoo koo def waaye gis nga kuy dox ci yàlla nga nekk ci mission ab yàlla yàlla lay dëgëral waaye boo doxee ci lu dugut yàlla rek commencé sonn moo tax gis nga ñeen fukki fan yëguñ dara waaye gis nga bañ demee ba passé fi nga xam ne mooy seen place ba lañ genn wàllu bëccëg lañ ca teg rek sonn boole ko xiif ba mu koy laaj maanaam seen añ ba mu ne ko ma koo fàtte fañ dajee woon foofa toogoon fa foofa la ma rëccee moom gën jën wi waw wi dugg ci biiru ndox mi lu ca di dem mel ni ak tëj fël haa Moussa ne ko loolu lañ doon seet nag munuñ ko woon a xam lu dul fa ñuy fàtte suñ jën wa bu ñu fa delluwaatee kañ doon seet foofa lañ koy fekk départ nañ nag départ nañ fekk nañ fa xadir xadir daal ba mu ñëwee Moussa ne ko dama laa bëgg a soppeeku sab taalibe nga xamal ma ci la yàlla xamal mu ne ko mbaa dana sottiyee mu ne ko danaa muñ foofa nga gis benn ci picc mu ñëw sëpp gémmiñam nga ci biir ndox mi naaw mu ne ko xam nga li picc mi wax mu ne ko déedéet mu ne ko gis nga xam-xam bi ma yàlla xamal te xamoo ko mu ngi mel ni géej gi li ci des lu toll ni li picc mi sëpp ci gémmiñam gi xam-xam bi nga xam te man xawma ko tamit mu ngi mel ni des ci géej gi ak la ca gémmiñu picc ma ah Moussa nag xam ne tey nag daj ne ko ko mat sëriñ te boo jàppee ci ku la mat sëriñ jàppal mu dëgër ku jàpp ci ku dëgër da nga jàpp mu dëgër waaye li ko mooy bu fippoo rekk bàyyi la fa léegi nag sëriñ ak taalibe day ami sarta xadir sartaal ko ne ko soo bëggee ànd ak man bu ma laaj dara lu ma def noppil bis boo ma laajee dara ma xewi la Moussa sartaal ko ne ko d'accord naa salbul iraada laay def maam xalifa salbul iraadi xadmun lil muridi danaa rékki ak nameel bëgguma dara loolu loo bëgg waaye du sotti ndax Moussa dafa ne woon sa tajudu nii incha allahu saabiran waxut mina saabirina daa ruuxul bayaan mu ne yàlla not ci yërmandeem ndax dafa génnee boppam ca mbooloo ma yonentu yàlla Ismaayila moom dafa ne sa tajudu nii incha allahu mina saabirin yàlla dolli ko yërmande barke ba moo tax muñ na ndax yaddu laay maal kon nag xissa boobu eh, ëmb xadir ak Moussa di xissa bu yéemoo yéemoo yéemu di diggante jàngale taalibeek sëriñ nga xam ne kenn waru koo weddi haa léeg-léeg sëriñ tamit yàlla natt ko mu xam taalibe bu ko xëpp xam ngeen ne xadir mii taalibe bi mu xam moo ko xëpp ndax ab yonantu la léeg-léeg tamit yàlla def sëriñ boo xam ne taalibe yi ko topp ñoo ko ëpp maqaama ci yàlla waaye yàllaa ko suturaal rek nëbb maqaamaam ba taalibe mee ñuy kër kër yi ci gannaawam rek fekk ñoo ko raw fuuf loolu léeg-léeg loolu léeg moo am moo tax tamit ah, boo nekkee sëriñ a ah, taalibe bu taxaw nga gëdd taalibe bu nekk nga toroxal billaahi da nga torox bëri na ñu la topp yàllaa la ko sagalee fekk ñoo la gën fuuf ëpp la maqaama fuuf raw la fuuf waaye yàllaa leen nëbbu sa maqaama bi waaye bu ñu xamoon fi sa maqaama toll ñu comparé ko fañ toll ñu bala waaye yàlla sagalee la ko nga bëgg a balbalu ci seen kaw yàlla toroxal la moom lay wax si nii moo tax sama borom tofal ca ne wa fàttalikul id qaala ba waxee Muusa Muusa ibnu Imran li fataawu ñeel ca mam sa di Yuusuf ibnu Nuun fekk ma ngi ko topp di ko liggéeyal Muusa ne laa abraxu duma dañ di dox xataa abluqa ba tama jotee majma al bahrayni dajee waaye ñaari géej ya muy géej ruum nga aggu faris ga fañ dajee ca fa méng penku ba fekk hegguma fa duma duma duma duma duma duma duma toog ah aw am di ba ta may woyee xuquban ab diir bu yàgg a yàgg pour jote ko danaa ko def de ak lum yàgg-yàgg falamma balaga ba nga xamee ne jot nañ ma majmaa ma daje waayu maanaam seen diggante ñoom ñaar te diggante bi doxam ñeen fukki fan la ñiy dox guddeeg bëccëg foofa rek bañ fa yeggee nasiya lañ fàtte xuutahuma seen jën wa ñoom ñaar fekk jën wa wowoon la yonentu yàlla soow moo ko gàddu woon fa taxa sa jàpp na moom jën wa sabilahu yoonam wa fil baxri ca géej ga saraban ba mel ni ak tëj fël mel ni daal am pax la moom ñëw rek dugg ca foofa nag bam fa bam fe bam ca yeggee fala maa jaawasa ba nga xam ne jéggi nañ place booba te fa foofa moo doon seen xemukaay léegi nag jéggi nañ ko xaala la wax moom Moussa li fataawu ca moom sax gannaaw bañ xiifee mu ne ko aatinaa andil ñu mooy dikkee ñu maanaam xadaanaa suñ xañ bi laqad laqiinaa wallahi sa dëgg-dëgg dajee nañ min safar naa suñ tukki mi haada nasaban coono qaala taalibi ba di yuusux ne ko araayta xeewul is is away naa ba ñu maanaam ila saxrati jëm ca doj wa foofa ca place booba fa inni naka man nasiitu laa alxuuta jën wa foofa laa ko fàtte wa ma an saa niihu fàtte loohut ma ko ila seytaan dara seytaane an askuruhu ma fàttaliku ko seytaane moo ma ko fàtteloo ba ma ko ba ma fàtte laa fàttali la seytaane moo ma ko fàtteloo ma fàtte laa fàttali lépp seytaane la wa taxasa jàpp na moom jën wa sabilahu yoonam wa fil bahri ca géej ga ajaban kéemaan mu mbir moo xam ne mu héemoo héemu la ma foolam ñaareel la xaala wax moom Moussa ne ko zalika ñàkk googa ñu ñàkk jën wa ca place booba maa mooy la nga xam ne ku naa nekkoon nañ nabxi di ko sàkku loolu mooy suñ màndarga mi ñuy mën a dajeeg suñu waajañ doon xuti muy xadir fartaddaa dellu nañ xalaa athaarihima seen jeexital na ngay toppatu san ak toppatu ma fa la muñ xasa feal ja fa wajada fekk nañ habdan jaam min xebaadinaa suñ jaam yi muy xadir aataynaaw jox nañ ko rahmatan yërmande min xendinaa gu bàyyi ko ki ñun te mooy al wilaayatu loolu moo gën a wér wa allamnaahu xamal nañ ko min la dunnaa fa ñun xelman xam-xam boo ko defee yàlla xamal na ko xam-xam boo xam ne xam la dënnu yu la bu bàyyee ko ci yàlla pire bees tàq su ko defee léegi nag Moussa nag gis na ko xaala Moussa wax na ko di sartaak moom xaa tax mu ne xaala wax na la ñeel ko Moussa Moussa ne ko xala tabiuka ndax du ma topp la ala an tuallima nii ci nga xamal ma mimmaa ulimta ci loo xam ne xamaleef na la ko rusdan ci njub kon ne ko nit ki boo koy topp da ngaa war a ut looy yokkoo ci moom loolu la Moussa sartaal topp ma la de di la ngay summi dàll ma la koy jëlal ngay summi sa yëre yi tilim may fóot lu dul li nga am nga amal ma ci nga tànk ma ci li nga xam nga xamal ma ci waaye topp nit mënul laa xamal tus nga xew neen du ca kër ga di fa fanaan soppi sa bopp ab dak moom nga jël ko soppi ko ab buur dara du fa njariñ du fa mën a juddu te loolu du jeex kër yu bëri tey ñuy askanee diine ay ponk lañ fay xeewoo jànguñu liggéeyuñu te amuñ yoon wu ñu yokkoo sax ci wàllu diine ci lu bëri su boobaa nag dañ say nekk ba torox rek soo mën a ñu delloo la ci say waajur boo dee ñu delloo la say waajur boo feebaree doole say waajur koy topp topp ko ngir loo mën a dollee ko ci moom ci xam ak ci jëf moo tax mu ne ko hal ka ndax du ma topp la ala an nii ci sartaam nga xamal ma mimmaa ci la nga xam ne ullimta xamaleef na la ko rasdan ci njub ko defee nag xaala moom xadir ne ko a ah, innaka naka yow lanta satiha attantiloo maay ànd ak man sabran muñ li ma jaaxal de mën naa laa xamal ci li ma xam waaye nag damaa jàpp ne doo mën te lii ci suñ xam-xam bi ku muñut munut coo jariñu ah koo kay fa tasbiru kaaw téef naka ngay muñee ala maal ala maalam tuxit ci loo xam ne peeguloo bee ca moom xubran ci xam loo xamut boo gisee ma koy def te mu wuuteeg li nga xam ndax da nga mën a muñ ba dooma ko laaj te boo ma ko laajut ma mën laa xamal soo ma ko laajee ma xewi la lii daal mooy wax ja xaala Moussa ne ko sa tajidu nii da nga fekk ma incha allahu bu neexee yàlla saabiran may aji muñ wala asidu ma mooy lakka ñaan la am ran mbir kon gis nga hadaf bi ñuy toppee taalibe ba muy toppee sëriñ mooy na ko xamal ci lim xam na ko baaxe ci li ko yàlla baaxe kooku mooy hadaf ba ñaareel bi sartaab taalibe ba ci sëriñ ba mooy sëriñ taalibe bi tamit na def salbul iraada bu mu bëgg lu dul la sëriñ ba bëgg fu ko joxoñ mu jublu fa loolu daal mooy sarta ba moo tax mu ne ko nag ah wala asi làkk amran kooku mooy salbul iraada ah yow tamit taalibe bi yow sëriñ bi tamit xamal mat gu day nii li la yàlla xamal nga dimbale ko ci li nga ko tenee ba tax mu topp la nga dimbale ko ci waaye bul fa nekk di ko fi xeew rek yaakaar ne boo ko xeexee mu xewee ko loolu tamit baaxul nga nekk fi xeew ko rek bañ koo xewi ah léegi nag kaala moom bu ko defee mu ne ko se incha allah saabi wala làkk amran xaala xadir ne ko. ah fa ini tabaxta su fekkee da nga maa topp fala tas àlan nii lu ma laaj an in ci dara bu ma laaj dara an sayin ci lëf xatta uhdisa ba tama solo lakka ñaan la zikran ci xibaar zikran ci jàngatal bu ma laaj dara lu dul lu ma la xamal kon booy topp sab sëriñ bu ko laaj melal ni ab néew bu ñuy sang ci kanamam comme sëriñ bu mat la waxuma la këriñ sëriñ laa wax de waaye boo yoree këriñ laajoo ko mu toroxal la boo gisee loo xamut topp ko ca mu toroxal la waaye buy sëriñ bu mat sëriñ te maam alaaji nee na sëriñ ma sëriñ mooy koo xam ne bu taalibe bi sukkee ci kanamam lépp luy lu ñuul ak lu weex ci kanamam dana ko xam ba mel ni soow bu ca lu ca bokk dugg nam koy xamee lu ca bokk bu ca duggee nam koy xamee léegi ca booba maqaama yombut ku mel nii nag boo àndeek moom jërul nga koy laaj dara fam la jubalee foofa mooy yoon wa waaye ku melul noona boo ko toppeek moom te laajoo ko dara mu toroxal la kenn mënu ci dara moo tax mu ne ko kon bu ma laaj dara xataa wax di sa solo làkk ñeela minu ca moom fikran ci jàngatal mu ne ko d'accord naa kon xeewante nañ ci ay sarta ànd goo gis dafa war a tëkku ci sarta ànd nañ ca fantalaqaa boy nañ ñoom ñaar ña ngay dox ca tefesu géej ga xataa isaa kibaa ba ñu yéeg fi safinati ca gaal ga bañ ca dañ dañ doon yóbbuwaale sax ndax xam nañ xadir kilifa gu ñëpp naw ba ñëwee ñu yéegal ko yéegalaale Moussa fayuñ benn dërëm ba mu bañ demee ba ca biir gaaj ga géej ga géej géej ga maanaam bañ demee ba ca biir géej ga rek xaraqa moom xadir mu jël sémmiñam wa xar gaal ga jël nag xànq gi nga xam ne boo ko dindee rek ndox ndox ma day solu waaye ba mu ko xaree dindi ko benn ndox soluwut xaala Moussa mënta muñ ne ko ak xaraxtahaa ndax da ngay xar gaal gi li tuxriqa ngir nga labal ëhlahaa ñooñ gaal gi ah laqad jita wallaay sa dëgg-dëgg indi nga shay an mbir imran mu màgg moo xam ne duhut luñ xam ci sharia ah kaala mu moom xadir ne ko alam aqul nda waxuma woon ne innaka naka yow lan tastatiya attanti la mahi ànd ak man sabran muñ qaala Moussa ne ko laa tuwaaxis nii bul ma jàppee mi ma nasiitu ci li ma fàtte dama ko fàtte woon jéggal ma ko kon boo amee taalibe bu njëkkee tarxiis bu njëkk ba jéggal ko wala turxiq nii bul ma togg min amri sama mbir mi xusran ak coono xusran ak jafe mu ne ko d'accord na jéggal na la fantalaqaa boyaat nañ gannaaw bañ génnee ca gaal ga ña ngay dox xatta ida laqiya ba ñu dajee xulaaman fero xale boo xam ne bu rafet la muy foo ak moromam maña moo ca gën a rafet te xamagul bàkkaar fa qatalahoo rey na ko moom xadir da koo jël jël booba ñii ne da koo rendi ñii ne da ko jël daal dóor booba ci am niir alquran daal waxut ñu ni mu ko rayee li wér te daal ray na ko Moussa ba mu rayee ni mu rayee alquran wax na ko fa wakkasahu Moussa waaye Qadir ni mu rayee alquran waxu ko bu ñu xamee loon njëriñ rek alquran wax ñu ko ray na ko daal qaala wax na Moussa ne ko aqatalta ndax da ngay rey nafsan bakkan zakiyatan bu sell boo xam ne bi xayri nafsin ci lu dul ray bakkan kii xamagut bàkkaar set lool nga ray ko rayut kenn nga koy ray foo ko teg laqad jita walaay sa dëgg-dëgg andi nga say an mbir nu kuran ma de muñ fank muñ fakk ci sariya duut luñ xam xaala xadir ne ko alam aqul ndax waxuma làkka ñaal la ne innaka naka yow lanta satiya atantiloo maye ànd ak man sabran muñ xaala Moussa nag wax na ko ànd ak kersa ne ko in saaltuka su ma la laajatee xan sayin ci lëf baadaha gannaaw lii falaa tu saahib ni bul xandoon ak man laqad balaxta jot nga min la dunni fa man xusran nganta kon xam nga ngànt ci teqalikoog man fantalaqaa booy nañ xatta isa ataya bañ dikkal ëhla xarit yi ñooñ dëkk te mooy antakiya fakk ña nga xiif lekkuñu ñaari fan bay dugg ñetteel ba istatama ñi sàkkoo lexelu ëhlaha ñooñ dëkk ba ñu soxla nag ku leen may reer ñu ne dañoo bëggoon ku ñu dimbale ci reer ñenn ñe ne dañoo fekk rek fu ñuy tegee ab reer ñu nuyoo ñooñe nag ne leen gan ñi may leen ñu ñu lekk ba pare fa abaw bañ nañ ñooñ waa dëkk ba an yu dayi foohumaa ñi le ñaari gan yu baax yii fa wajadaa fekk nañ fiyaa ca dëkk ba jidaaran miir bu ku nga xam ne guddaay ba téeméeri xasabu la yuridu jege na an yan xadam mu màbbu majaas la ndax miir mënta bëgg su ko defee nag mu héegal ko mel ni iradatu moo tax mu ne yuridu jege na an yan muy màbbu fa aqaamahu jubbanti na ko moom xadir ba mu jub kotti xaala wax Moussa ne ko law sita bu la neexoon de la taxas la nga jàpp maanaam àlla yi ci lii nga def ajiran payor ndax ñi mën see jënd xañ dëkk baa ngi nii laaj nañ leen luñ lekk ñi bañ su ko defee nga defal leen teraanga ju rëy ji nga xam ne seen trésor bu mag la kon nag laajal dara ñu mën see jënd reer ak añ kaala qadir ne ko haada lii de firaaqu bay nii mooy teqali ko sama diggante wa bay ko ak sa diggante sa un nabiyu ko nag danaa la solo waaw bi taawili ma ci firéem la nga xam ne lam tasati attantiloo alay ci moom sabran ci muñ danaa la ko firil nag bala ñoo dem